waxee. Euh, imam mhm. plus de mille soixante huit wala mille et quelques détenus ñoo nekk ci kaso bi. dëgg léegi ku wax ñu jàpp tëj. gis nga rey yi ni fi ni mu fi demee. Mm, ñu daan déglu maam Abdou Aziz Dabakh. daan jóg bu réew mi tollu fii wax. Mm, mm. mu mel ni Sénégalais yi namm nañu maam Abdou Aziz Dabakh. Mm-hmm. taxawaayu kër diine yi ak mm-hmm. kilif diine yi. Mm-hmm. ci situation politique bu Sénégal. waaw loolu ñëpp ko nemmeeku mooy seetlu nañ ne réew mi man dama gëm ne dañu yegg ci situation boo xam ne Sénégal mësu faa yegg loolu laa gëm. fii ñu toll tey ci réew mi depuis Senghor ba ab du juuf gëm naa ne mësuñu fa yegg ndax lan xëy tëj lu ëpp junniy doomu aadama. Mhm. ñun dañ daan wax ay mille deux cent mille Ismaïla Madior Fall laa déglu moom mu wax ni. Mhm. jàppoon nañ mille quatre cent vingt bien mille quatre cent quarante détenus mhm. yoo xam ne jàpp nañu leen. Mhm. waaw léegi ñoo su fekkee jàpp nañ lu toll noonu ci ay euh, détenus jamono sengoor loolu amul. ab du Diouf amul jamono Abdoulaye Wade amul. loolu dafa jéggi dayo ci ay délits yoo xam ne mën na am ay délits mars la ay délits poste Facebook. yooyu nga xam ni du crime du dara. absolument ay. kii yu ñàkk solo yoo xam ne wallaay mën nañ ko tolérer waaye nag comme problème politique la nga làq lu ëpp junni doomu aadama ay manifestation am ñu naan ay téeméer deena ci ñu naan ay quatre-vingt deena ay soixante-dix deena loolu dafa bari ci réew man ma jàpp ne <coughs> benn thème bu général mënuñ ko woon a def ci réew mi lu dul dañuy waxtaanee ci bakkan yu faatu yooyu. Mhm. waxtaanee ci détenu politique yii. loolu moo am même ñoom bu fekkee dañuy wax ne non du détenu politique déggatuma sàcc bu nu jàpp déggatuma agresseur bu nu jàpp. ñan laa dégg ñu jàpp ay manifestant ay tiktokeur mhm. loolu ban danger la am ci te ba léegi nit ñaa ngi mhm. agressé mhm. mais ñu ñu nekkatuñu priorité ñan ñoo nekk priorité ñi nga xam ne dañu gëm ne système bi daa war a changer man jàpp naa ne nitu diine am na kàddu ci wax ne attention mooy alerte ne leen xam leen fu ngeen di yem ak fu yàlla yi parce que dañuy xam ne ñoom binduñu sénégalais yi fii lañ ñu fekk te dañuy dem ñu bàyyi waat ñu fi suñu deret yii suñu bakken yii dañ leen koo sàmmloo mais pas ñu toroxal ñu mhm. léegi nag nitu diine bi foog mu fàttalil ki nga xam ne doole ju ñëpp bokk lañ ko jox mhm. moom mu jël doole jooju fas yéene faagaagal ci ay nit ngir intérêt boppam ñu ne mhm. ko attention defal ndànk li taxoon yàlla yónni yonti yàlla Moussa ci na lan la gis ko muy faagaagal ko askan wi di rey ku ko neex di tëj ku ko neex di dàq di génne ku ko neex mu génneel dëkk bi mhm. yàlla yabal yonti yàlla Moussa ne ko demal nga ne Firawna na na def ndànk na teggi tànkam mhm. bew na nee ko na wàcc du yàlla nit képp la est-ce que réew foofu non président Macky Sall war a téye loxom parce que fi mu toll nii man dama gëm ne président Macky Sall dañ ko war a nag tëj bi doy na mhm. li mu tëj ëpp na ëpp waxuma dafa ëpp maanaam junniy nit ci kaso jéggi na dayo te am na ñoo xam ne délit yi ñu def jël ko mel ne Fadilou Keita Mm-hmm. jël ku mel ni Diomaye Faye Cheikh Oumar Diagne Abdou Karim Gueye Cheikh Bara Ndiaye génn mm-hmm. barki dem maire Amidia ñii lan mooy seen dégg mm-hmm. ñii boo posté woon ne ñii lu ñu def téeméeri nit yu commentaire quatre-vingt yëpp da naan la xamuñu lu mu def bon quatre sax tuuti na kenn mun la wax lu ñu def dama seetaan ministre de la justice délit d'opinion la ah wax sa xalaat wax ni nga gisee réew mi lu tax buñ jàppatee nit du ñu leeral kii lu mu def ba ñu tee ko dama seetaan ministre de la justice xam naa journaliste yi nañ ma baal ñoom it mhm. Ismaïla Madior toog seen TV ndaw si laaj ko ne ko Fadilou Keita li ngeen ko tëjee post benn benn post Facebook rek la def wane ne sama rakk ba Fadi euh, kële ki gaañu hmm, Badji Badji Badji mhm. bon sama rakk ba mbaaru dañ koo rey nii nangam nangam mhm. ci lañ ko tëj mu ne ko ku la wax loolu mu ne ko loolu def ci facebook am ko am nga post bi ne ko def mu ne ko génne ko mën nga ko yéen ndax su ne ko non mënu ma ko génne fii moo tax mu ne ko voilà mi ngi noonu dèjà yaa ngi waxtaan élément bi saa si ko si mhm. mais ndaw si ne ko léegi yow dañ laa woo pour nga leeralal ñu leeralal ñu ko mu ne non waxul loolu dafa saaga gendarmerie saaga police ne dañ leen a war a rey mais fi ma yeddee ndaw si da ko waroon wax an sa élément absolument génneel ñu fan la ko waxee parce que moom daf na ndaw si génne ko mhm. mais moom nee na dafa saaga police saaga gendarmerie te ci page Facebook am la ko bind mais ñun page Facebook mbedd la. absolument ñëpp am nañ fa accès ko. léegi da ko waroon wax ana capture bi. Mhm. mais malheureusement laaju ko ko. léegi yow daal soo bokkee ci nguur gi booy tuumaal nit da nga koy tuumaal gratuitement amul benn élément. Mhm. su ko defee ñu gëm la. mais ku bokkul ci yéen lépp lu mu wax dafa war a ànd ak élément wala ñu tëj ko ci kaso bi. Mhm. cest loolu mooy Sénégal loolu du yoon. moom ni mu laajee élément ndaw si ne ko am sa élément ba mu waxee ba pare dafa waroon génne élément bi ne mi ngi nii. poste baa ngi nii dat tel ak tel la ko def mi ngi nii. Mhm. ba pare daf ko napp de ne ko man scientifique la du ma wax ni gratuit lépp lu ma wax dafay ànd ak element quand même. Eh, eh, <laughs> fay na ko loolu moo jaaduwul. Mhm. yooyu ñiñ leen téye nii tey du wu dara. lu dul ñii koo ci seet opinion bi mu nekkoon di dégager arrangé wul état bi. Mhm. Cheikh Bara Ndiaye ni mu daan waxee arrangé wul état. absolument Cheikh Oumar Diagne waxi noppi Abdou Karim Gueye dama ko jëlale. <laughs> ñii ñi ci téye ci poste yu ndaw yëpp. la ñu doon wax moo arrangé wul nguur gi. Mhm. mais ñeneen ñiy wax lu gën a garaaw loolu. te la ñuy wax dérangé wu leen. Mhm. mooy ana ñoom. waaw mais mais booy bi dëkk fii Grand Yoff agressé mais mais mais suy Ahmed Suzanne. Ah, Camara Ahmed Suzanne Camara toog fii di woote ay rey nit gis nañ ko taxaw dañ dañ dañ war a rey Ousmane Sonko. Ah, ak ki woote nañ hmm? taal wal fajri ak ku woote nañ taal wal fajri. gis nga fii xam nga. xam nga xam nga mooy mooy mooy mooy mooy justice à double vitesse bi am. ñu remarqué ko. Ah maanaam boo bokkee ci benn boor. Ah, wala benn wàll. loo neex wax loo neex ah. def du mujj fenn. mais boo bokkoo ci opposition wala ñiy wax seen xalaat. Mhm. parce que euh, imam mhm. yéen dañ leen di tiital. Mhm. ah bien sûr chaque jour ñu wax. ñun dañ ñuy tiital. gars yi moytu leen gars yi. gars yi baaxuñu man ay waay xoolal ma lii sax xas la déjà. gars yi baaxuñu moytu leen leen xoolal ma lii rek hmm. yow nan nga amee koo xam ne moom nga dénk sa lépp ba pare nga xam ne baaxul moytu leen gaañu baaxuñu dañ leen di arrêté man leen yéen man mosu leen a dégg ma saaga hmm. wax lu ëpp li may wax ma ngi koy mesurer mooy nag gaa ànduma ci lii ni may doxee moom dafa leer hmm. man nii ñuy doxalee réew mi d'accorduma ci te li tax d'accorduma ci du dara mooy dama gis ne du yoon dund bi dafa cher location dafa cher tali baaxul nit ñi dañuy feebar amuñu fu ñu. amuñu fu ñu fajoo mm-hmm. ñoom bu ñu feebaree dem bitim réew faju ji. te loolu ñuy fajoo suñu alal la ñun. ok ñun ñoo leen ko voté ci budget yi. Mm-hmm. léegi après ñu bëgg ne lii nañ ko banaliser nii rek ñëpp naan c'est bon baax na. baaxul de nii ñu ko yoree baax. mais mais imam mm-hmm. imam est que ñu. ngi wax tey jii. Euh, li président waxoon ne je vais réduire l'opposition jusqu'à son ah. plus expression. loolu ko benn ñaar. est-ce que réussirul leneen. bu ñu demee ba borom xam-xam ñi ñi ne ñañ ci diine ji. Ah. sañatu ñoo wax. ñun journalistes yi ñenn ñi amatuñu fit wax parce que jàpp nañ ne lépp loo wax mën nañ xëy na la diffusion de fausse nouvelle effectivement waaw diffusion de fausse nouvelle dugal la ci kaso bi ah. am na ay religieux yoo xamante ne Oustaz Assane Seck ah gis nga ko ba léegi mi ngi ci ba léegi ba léegi mi ngi ci kaso bi sëñ Assane Mbacke kan lañ ko bàyyi ah, ci ci euh, ci barke démb ci euh, ci ci màggal gi lañ lañ ko bàyyi mhm. kon je pense que na tey jii fii réew mi toll mhm. la responsabilité mhm. des religieux parce que aussi mënuñu am ay nit yu noble ñoo xamante ne ay ay ay ay seen bëgg Sénégal rek moo tax ñu tëj leen ci kaso bi mhm. ñoo xamante ne bëgg diine ak waxal diine tëj leen ci kaso bi mais taxawaay bi ci ñoon diine yi taxaw bu ñu waxee ñu ne dañoo singale ñoon diine yi ah. mais respons parce que ñun ñëpp ay taalibe lañu mhm. man dama jàppu ne am nañ ci kàddu gu rëy ndax lan seeni njaboot lañu mhm. ñu ne ci kaso yi seeni njaboot lañu ñu ni menacé seeni njaboot lañu te gis nga maas ñoom du ñu yem ci menace dañuy appliquer. Mhm. maanaam nit day wax ñu koy alerter nga xëy ñu ne ko niib jàpp Cheikh Bara bi ñu ko dalee arrêté naan dañ koy jàpp yàgg na. Mhm. mais après moom da daan di laajte naan man buñ may jàpp ci lan lañ may jàpp. Mhm. du ma wax lu bon man du ma jaay lu bon man du ma saaga. cest à buñ la bëggee jàpp fu leen neex jaar jàpp la. Oustaz Assane Seck propos yi muy wax wax nañ ko léegi kon a xam ne ne waa ji dëkk fii Géejawaay Suzanne Camara wax na lu ko gën a garaaw mhm. mais ñoom ñooy xool ñi leen déranger ñu jàpp ñi leen neex man dama jàpp ne loolu ab nitu diine ma yor conférence boo xam ne àddina yépp a nga koy xool te du ma def occasion mhm. naqar lu tëj bu bare bi ak rey gu bëri gi ak jaay doole gi ak dund bu cher bi ak ñàkk paju gi mhm. loolu foog ma yóbbante ko aw ma lu dul wax yow yaa ngi jëf naa ko def te kenn du ko wax moom kooku maqaama yeggu ci jàpp naa ne nag am na ay nitu diine yi ci jël seen yegg nañ ci nag de ah nit ñaa ngi wax ne maas. Ah, ñëpp ñan ñooy wax imam mais na ñuy wax de. imam ñan ñooy wax ci réew mi. waaw ñu dugg ci kaso waxuñu. Ah, ah, ku wax dem xam ku wax dem. waaw ñu wax rek. mais ñi wax que aussi donte nag gars yi léeg-léeg ñuy wax di wiiri quoi ñi ñi daan wax mm-hmm. hmm? démocratie am mais fi mu toll nii que ça soit la presse les religieux benn benn nga ci gis ay benn benn ñuy wax te booy wax ñu naan la attention te yow ñu lay wax attention xam nga ne wax nañ dëkk mhm. ndax ñii seen yoon nekkul ci kii may bëgg a jàpp est-ce que soutien de famille la liggéeyam est-ce que franchi parce que am na koo xam ne boo ko tëjee ñetti fan liggéeyam yàqu ñetti fan kese absolument am ne mën nga ko tëj sax un an liggéeyam du yàqu xëy na sans def mais am na koo xam ne bu tardee benn fan ñàkk liggéeyam bu mhm. tardee ñetti fan ñàkk liggéeyam ñoom yooyu duñ ko xool am nga jabar am ngay doom am nga suñu lijjantu seen yoon mais comme yow da nga leen wax lu leen naqari ñu tëj la kaso mais loolu danañ ko régler yow danañ ko régler yowmal xiyam mhm. te boo ne yowmal xiyam dañuy jàpp ne ak a sori mais ak a jege mhm. parce que dund bii tey ku waxoon àddina ne la da nga dem ba signature Ablaye Wade amatul njëriñ ci réew mi mhm. benn Ablaye Wade ab téléphone bu ñuy jaay sax mënu ko signé ci réew lool loolu nag ñoom bu dee ñu ko te loolu yàggul 2012 dong la woon ana Karim Wade ani Abdou Diouf ani Senghor yooyu bu fekkee doo ko nangu après nitu diine bu ñu lay wër di la lijjanti ba xam yow déglu ko ba xam lan lay wax sax ñu di la déglu ba xam boo paree ñu ramas dugal ci kaso bi tey Oustaz Assane Seck mais mi ngi ci kaso ba gaa ma nga fay jàngale sax man fekk naa ko fa seeti naa ko mhm. mais tey ma nga fa toog di jàngale loolu mu doon def fii ci société bi lan la yàqaloon nguur gi xëy na yee bi muy yee nit ñi mhm. pour ñu jóge ci euh, nelaw yi nii nelaw mhm. ci nguur gi ñi ñuy nootee xëy na loolu moo leen neexul mooy bugguñu ko yeete waaye gis nga wa xakim ba dane woon buur buy dundee lëndam ginaar gu sab njël mhm. mu jàpp rendi parce que nee na dafa jàpp ne sabu ginaar yay waral bët set ndax bu sabee gaa yi yeewu ne bët set na fekk sabu ginaar yi waralul bët set de bët mooy waaj a set moo tax ginaar yi di sab mooy nit ñi wax ñu bëri yi ñuy wax mhm. système bee waaj a changé li leen di wax loo xamuñu ko mhm. boo tëjoon ñaari yi nit danga nga dégg ñeneen kon kon jàpp nga ne imam système bi dana changé par force ma système bi par la force li koy changé nag ñaar lay mën doon dafay changé wala mu chancé viol violemment violemment mm-hmm. kenn ñaanul yàlla boobu bi gënoon mooy ñu changé ko ci vote mm-hmm. ñu dem ay élection ndànk nit ñu xool ñoom ban système lañ bëgg ndax bi Bougane proposé ndax bi Sonko proposé ndax bi Amadou Ba proposé parce que léegi nekkatul Macky Sall ndax bu xalifa mm-hmm. Sall proposé ban moo leen ci doy nit ñëw adopté wu bii moo ñu doy wa illa loolu amul nit ñi continuer di souffriraat di dundaat ay naqar di ko tegale li xew ci sous-région bi di mal mhm. Mali di gine mais yu mel nii fa xew Alpha Condé ci troisième mandat la toog montant montant dëkk bi yëpp dañ bañoon absolument même bi xew Tchad même bi xew Niger bu ci nekk dem nga ba jégg obstacle bi ba ne léegi affaire bi jeex na reesal naa opposition amatul ci réew mi yaa teg say force lu la neex def après vague bi doo xam sax fan lay jógee ok léegi nag après boobu ci loxo yi muy dal da mhm. kenn dul xam loxo yi kan mais dañu dégg benn kàddu mhm. Euh, kàddu gu xaw a doy waar mhm. mais bu metti ñenn ñi aussi mhm.